soxlaa comme ni ñu koy waxee a tout moment alerte dafa am aw yoon woo koy jaar pour alerte bi baax ñu bare ngi woote alerte te ki ñu woo yéex a ñëw wala du ñëw fekk nan wootee moo baaxul kon am jàngaleen la tey rek dañ leen di wax nii defee alerte boo xam ne nii moo baax sooy alerte li nga njëkk a def mooy d'abord da ngay présenté wu ginnaaw ba nga woowee numéro bi ngay woo moo xam sapeur la wala police secours wala SAMU wala koo man di doon nga woo ko ba mu la ba leer ne moom moo la da ngay commencé nag di présenté wu nga wax yow sa tour ak sa sant ginnaaw bi nga présenté wu ba pare wax sa tur ak sa sant la cay topp mooy da ngay joxe sa numéro téléphone mooy numéro téléphone bi nga xam moom nga yor di ko wootee da koy jox ngay woo benn yoon ñaari yoon ba ne la numéro bi jàpp naa ko wala bind naa ko loolu mooy ñaareel poñ bi ñetteel poñ soo joxee sa numéro ba pare nag da wax nag fi accident bi amee lieu mooy béréb bi nga xamante ni bii fa l' accident bi amee nga waxe ko béréb boobu itam da ko war a wax mu leer naññ da war wax fa mu nekk te soo koy wax itam dafa war a amul war a am repère mooy foo xam ne nii soo ko tegtalee suy ñëw mën naa bala muy ëgsi foofa ci béréb ba du fekk loola da nga koy wax boo xam ne béréb bu xam la bu ràññeeku boo xam te bi moom dina ko mën a xam wala boog am na ci repère yoo xam ne du mën a réer ginnaaw ba nga xam ne bérébu accident bi da ngay wax nag nature accident bi mooy accident bi carrément lu ko sos ci lu mu sosoo ban xeetu accident la ndax ay oto yu daje la wala ndax oto ak moto la wala ndax leneen ak leneen la nature accident bi dafa war a leer ngir moom suy ñëw dina xam ne la may fekki accident ba kat teg accident bii la kon wan matuwaay bii war a yóbbu moom laa war a yóbbu ginnaaw ba nga xëy nature accident bi tam da war a wax ñaata victime moo am ci accident bi mooy su fekkee kenn ci gaañu nga ne ko kenn ci gaañu su dee ñaar nga ne ko ñaar su dee ñett nga ne ko ñett loolu lu tax ndax soo ko waxul loolu suy ñëw du xam ñaata victime lay fekk si su fekkee victime yi dafa bari te woo ko nag victime yi daa bari suy ñëw mën naa indi matuwaayu benn wala ñaar ci ay nit yu mu war a li wala oto ba mu yor nekk oto bu ndaw boo xam ne du mën a jël victime yi ci war yëpp waaye soo ko waxee nag ne ko nangam victime gaañu nañ ci suy ñëw dina bàyyi xel ne victime yi muy fekk si bari nañ ëpp na benn ëpp na ñaar ëpp na ñett ngir mu waajal matériel ak oto ba muy indaale ginnaaw nga wax ko itam nangam victime la di nga ko xeeti gaañu gaañu yi am su fekkee xam nga ko su fekkee damm damm am na ca nga ne ko am na damm damm suy ñëw dina bàyyi xel la dina indi matériel xam ne pour ko damm la am na ku nooyam taxawoon indiwaat naa ko nga wax ko ko pour su ñëw xam ne mi ngi fekk si ku nooyam taxawoon ak kuy nàcc itam nga wax ko ko lépp loo xamante bii am na ci ñi nga xam ne mooy victime yi li ci gën mooy nga wax ko ñii ñëw pour ñu jël matukaay yi nga xam ne moom la ñuy ñëwaale la ca des itam soo ginnaaw ba nga waxee nag carrément mm, gravité accident bi da war a wax nag yoon wi muy jaar mooy yoon mi nga xamante ne bii fa lay jaar pour ñëw fi nga nekk yow yoon woowu itam dafa war a leer danga naa ko béréb sàngam ngay jaar ak béréb sangam bi sam su fekkee yoon yi daa bari wax ko yoon wi gën a gaaw wala boog yoon wi nga xam ne moo gën a neex jaar nga xam ne du terrain bu accidentel day tax itam ñëw ga gaaw te it réer ci am ginnaaw ba nga waxee yoon wi gën a gaaw pour ñëw su yàlla dogalee ba nga wax ko lool da nga ko war a laajaat ne ko ndax li ma wax leer na wala leerul mu ne la li nga wax lépp leer na dégg naa ko su fekkee dégg ko nga rappelé waat ko dal ciy jaaraat su fekkee ne dégg naa ko nag nga xam ne moom message bi leer na nga bàyyi ba mu raccroché yow nga soog raccroché waaye waroo raccroché feeg moom raccroché wut lii daal mooy ci anam bi nga xam ni moom la ñuy wootee wallu mu tuddee ko alerte ci tubaab pour que ki ngay woo mën a ñëw te ñëw ga itam ñëw ci à temps indaale la mu war a indaale pour xetli bi mën a gaaw ci anam yi gën